ko personnal ko personnalisé. oui euh, parce que clé USB bi déjà man j'ai euh, dama ci teg benn code QR bi nga xam ni boo ko scanné muy clé USB bi wala muy photo euh, kii bi CD bi. Mhm. wala muy affiche bi sax nii. Mhm. boo jëlee sa téléphone boo scanné code QR bi daf lay yóbbu directement ci suma page YouTube nga xam ni. nit ki am cofeel ci yow dootul manqué benn actualité. mooy mooy waane bi ñuy wax quoi ci Abdou Guité <laughs> <laughs> en tout cas ça fait vraiment plaisir donc dañuy jeexal ak li nga xamante ne aussi on sait que ni Abdou Guité dafay intéressé bu baax a a baax ci société bu Sénégal ak ni muy doxee déjà ci mois de mars la ñu nekk euh, dina am loo xamante ne di nga ko baaxee ñi nga xamante ni ñooy suñu ay jigéen mais aussi ci politique bu Sénégal ak li nga xamante ni moom la ñu nemmee pour une politisation aussi de l'islam mu nekk loo xamante ni gis nañu à chaque fois rek bu amee euh, ay mbir yoo xamante ne xew na Abdou Guité dafay prêter sa voix pour àddu ci mhm. aujourd'hui qu'est-ce que cela vous fait ak ban lecture nga euh, am ci société bi ak surtout politique parce que aussi ñu ngi jëm ci élection d'abord cette première question par rapport ak politisation islam bi ak coow nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci bon man nag euh, way na nanu moytu di jaaxase diine geeg politique bi mhm. ndaxte xam ngeen ni bokkuñu gëm-gëm mhm. bokkuñu gëm-gëm donc ci wàllu politique aussi du tey lan ci tàmbali di wax mhm. ndax euh, ci album coup d'état mhm. wayu dénkaane boo ko dégloo dëgg di nga xam ne du tey lan ci tàmbali di wax mhm. ah parce que wayu dénkaane boobu vidéo clip am mi ngi daw te li nu ci wax noo ngi waxanteek askan week ñëpp mën nga wóolu doomu aadama ba jox ko donkaasa gi ay jëfam méngoog la neen sa yaakaar tas waaye mën nga ñàkk wuulu doomu aadama ba xañ ko donkaasa yi waaye fekk na bu falu woon boo jaaxlee mu jàlle la donc yu mel noonu ay baat la yi nga xam ni dafa jara bàyyi xel mm-hmm. am na yeneen i way yu nu way ci politique bi yu bari maa ngi naan sax est-ce que bu fekkee dañ war a génne laneen laata élection yi est-ce que du doon album bu tudd politique parce que li ñu bind ci politique lu tax on s'empresse pas di mm-hmm. génne parce que li nga xam ni la ki fi ne bu fi jegee wit kaneen kii ñëw da ciy am wàll mm-hmm. donc way wi nga xam ni la euh, jëmul ci ci euh, joxo joxoñunu kenn mais wayu askan wi la ñëpp mm-hmm. kuy politicien am nga ci wàll kuy nekk ci askan am nga ci wàll donc kon euh, ñun duñu tàyyi di wax ndaxam sax njaaxaanaay lañu mën a tëdde ndaxte ñun ndey ji seex lañu mm-hmm. ndax boo doonee artist wax dëgg yàlla dafa war a am noo doxe bien que mm-hmm. bu loolu weesoo boo demee ba ci urne ku nekk am nga foo féete parce que foofu sa mbubbu artist da koy bàyyi ci biti mm-hmm. kon pour gàttal du ñu tàyyi di wax ci mbirum politique diine ji nag ak politique bi ah nañu mooy di leen jaxase ndaxte bokkunu gëm-gëm. Mm-hmm. man gëm naa ni bokkunu gëm-gëm. Mm-hmm. super donc c'est important en tout cas message bi la leer na merci beaucoup donc ci euh, kàddu yooyu la ñu jeexal ak euh, mois de mars ba ñu ko waxee xel yi dafay dem euh, ci jigéen ñi est-ce que déjà ci album bi ma xool ndax rendre nga ci hommage jigéen ñi <laughs> am nañ ci seen wàll mais d'abord un message boo xamante ni da nga koy lancer pour mois de mars bi journée mondiale de la femme le 8 mars. non xam nga tàngal. Mhm. boo ko dégloo soxol day neex. dëgg <laughs> parce que ça parle d'amour. Mhm. waaye tamit. day ñëw pour régler problème yu bare. Mhm. ndax yéeféer bi ñëw ak i donjam nga ubbil ko nekk dalal ko teg ci di ko bernde alal dong nga gis bu la jaralee yàq diggante ñaar ñu bëggante sunu taxawaay jar na seetaat. ñu dem fi foofu jóge foofu dem ci deuxième morceau bi soppe yi. soppe yi samay jigéen mhm. samay jigéen laa ci gën a way mhm. mooy Ndey Kumba Fall mooy Mami Fall mooy ki nga xam ni mooy Rama Diallo mhm. waaye mooy faatu Fatou Sow chéri la donc ñooñu mën naa ni ñoo defandoo tu ñoo tout ki tànk ñoom ñëpp nag kenn yëgu ci woon way wi ci tele bi nga ko ci rajo bi nga ko déggee ndeysaan mu def leen boum au cœur ñu delloowaat ma buum bi au cœur et ça me permet de composer d'autres chansons donc il y a la chanson Kakatar mhm. bi nga xam ne mi ngi wax tamit ci diggante ñaar ñaari doomu aadama voilà mais jigéen ñi du tey laa leen tàmbali way mhm. du tey laa leen tàmbali sargal mhm. mooy li may wax rek damay dellu si waat ci kàllaama googu booy bind way c'est pour le temps ndax yow laa bëgg way woowu dafa am place am ci jour Saint-Valentin am place am ci jour sargal jigéen ñi mhm. ndaxte neel sa yaay la mu liggéeyoon teeñ waa ngi nii teeñ waa ngi te yen wi ñëwagul yen ween ci yoon dina jéem sama kemtalaayu kàttan am naa dépense mën naa fóoni mën naa xalam mën naa ricc <laughs> joxeñal ma dagg loolu bu amul bu amul place ci mm-hmm. biir suñ jigéen ñi mm-hmm. baneen way du ci am place sama doom bu jigéen bu amul place ci biir jigéen ñi mm-hmm. baneen way du ci am place bu jigéen est-ce que doo ko remixé ci prochain album bi <laughs> lu mën a nekk la ah, loolu moom parce que xam naa ne sénégalais yi duñu duñ ci doyal lu mën a nekk la voilà boobu moom sénégalais sénégalais duñ ci doyal mangoog donc pour euh, conclure la question ndey soxna bi nu way nga xam ni képp kuy yaay da nga ciy gis sa bopp mhm. képp kuy doom dangay da fier mhm. ci dégtal ko sa yaay parce que man je me mets à la place de ceux qui ne peuvent pas chanter mhm. je chante pour eux ñu bokk thème bi bokk delloo njukkal suñuy jigéen kon daal 8 mars ak 2 mars moo ci yemale jigéen ñi ñooy sunu léppay fu ne. te ñoom ñoom moom dama masaan ak ñoom. <laughs> macha allah en tout cas merci beaucoup ça fait vraiment plaisir. de nous recevoir tey ci Sénégal 7 dans Scoop Magazine pour parler de l' on rappelle l' euh, de Abdou Guité Kakatar donc c' disponible ci plateforme digitale yëpp et puis dégg naa aussi Europe ak gars yi ñu ngi koy au Sénégal c' est disponible au marché exclusif. Eh, et si vous nous appelez direct à partir de notre numéro de management. d' 202 59 99. 77 202 59 99. Super. On vous l'amène chez vous. Machallah. Voilà. Et puis <laughs> voilà, il y a la tournée qui va venir aussi. Inch'Allah, c'est évident. Ah. C'est ah. évident. Là, on s'apprête pour partir euh, en France. Bu ñu fa jógee, on doit aller jouer pour les euh, Sénégalais au Canada. Inch'Allah, bu ñu fa jógee fekk koor gi jàll. Mhm. ñu ñëw nag bu nu bu ku mu yeboon rek nga bañ a taxaw ci yoon wi. <laughs> ndax moom. boo ñëwee da ngay moom moom <laughs> laneen lay doon incha allah. merci beaucoup en ak euh, Sénégal yi leen. jërëjëf jërëjëf waaw donc euh, mbokk yi jërëjëf euh, bi ngeen taaxirloo seetaanu ci émission bi. kontaan na lu bari en tout cas je li ma mën a conclure rek mooy je vous porte dans mon cœur mhm. yal na yàlla def jàmm Sénégal dalal xel yi dalal xol yi jàmm sax fi baawaan ci fànn bu ne Allahumma amin. En tout cas, merci beaucoup. Donc, c'était Abdou Guité Seck aujourd'hui dans Scoop Magazine sur Sénégal 7. Merci à la régie. Tout est nous avons eu un aussi de la défaut dédicace de la part de Abdou Guité Seck. Merci à la production et toute l'équipe de Sénégal 7. Rendez-vous du numéro de Scoop Magazine avec un invité, Faran Agdiam.